mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ku ci ne turam ak santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey ñoo ngi fii ci Dakar Pikine ci kër sëriñ Jili Abdou Khadir Samb ñu ñëw fii tey ngir dagaan ci moom comme ni koy defee saa bu ñuy waajal bisub salaatu an ci kilifa yi ñu ñëw fii ci moom nag di ko dagaan ngir mu waxtaanal ñu ci lenn ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexale ko ci njëriñal salaatu ala nabi ak jàjj ñu ñun mbokk yi ci nekk di jël nuyoo waa Képpangoor salaatu ala nabi yëpp ci njiital seen Bassirou Touré di ko ko jébbal di ko wax ne ko waa daara ji ñi ngi koy safoo bu baax. ñu ngi am mbégte tamit sa xamum jotaay ndax képp ku dégg sëriñ ji li Abdou Khadir ci sa xel ci sëñ Tuubaa lay dem waaw sa xel bu demee sëñ Tuubaa sa xel ci xasida yi lay dem ndax waxtaan yi ngi ciy def yu am solo yi nga xamante ni mi ngi ciy gindi mbokk taalibe yi kon duñ kàddu gi lu sori dañ koy jox rek uh, kàddu gi mu waxtaanal ñu ci lenn ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ ji ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar di la jox kàddu gi aouzu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax eh, di leen ziar di jiital ci nuyu yi ak ziar yi saaxibul fadila sëriñ mu muntaqa alxalifatul aam di taifatil muridiya ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mbooleem naal yim naal sëriñ Touba mu defe ko nu kawe njortam te ñu ànd ko moom di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Touba yëpp di nuyu mbooleem jullit ñëpp di nuyu mbooleem taalibe yëpp di am mbégte eh, di eh, ñëw nag ci eh, chaîne télévision bu am solo bi di ëttub sëriñ bu mag bi di nuyu mboolem ñi nga xamante ne nii ñooy ahlu salaatu ala na waaye di ci jiital nag ki nga xamante ni mooy kilifa gi di sëriñ Bachiru Touré moom soxna Tahiratu Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom Cheikh Mahamadul Khadim Euh, di nuyu na mboolem équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw fii tey ci kër alxaaji sëriñ Samb mi nga xamante ni kenn la woon ci sëriñ Abdul Ahad Mbacke euh, di nuyu bu baax sëriñ Birahim ak mboolem yi nga xamante ni ñoom la àndal ñi am mbégte nag euh, di ñëw ak ci waxtaan woo xamante ni dafa jëm ci tomb bu am solo muy baadun min axlaaqi nabii sallallahu alayhi wa sallam muy lenn nag ci jikko yi yonent bi ndax jikko yi nga xamante ni moom la làmboo dafa bari lool ba kenn mënta waxtaane lépp ci benn jataay waaye dafa am yenn ci ay jikko rek yoo xamante ne nii moom la ñuy jukki bu ñu demee nag ba eh, ci jeexeetul waxtaan wi ñëwaat ci beneen tomb bu am solo muy asalaatu ala nabi muy julli nag ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñ borom bi dara tawul ñu tàmbali waxtaan wi ci bismillahi arrahmani arrahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mu doon na njëriñ ci képp koo xamante ni eh, seetaan na ko wala déglu na ko eh, su ko defee nag eh, jikko ci boppam mooy lu am solo boo xamante ni su baaxee ci nit ki rek nit ki baax waaye su safaanoo rek nit ki safaanu nga xamante ni yonent bi dafa wax benn xadis bu am solo boo xamante ni dafa wax ne xayrukum ahsanukum xuluqa ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni mooy ki gën jikko nga xamante ne suñ borom euh, lenn rek lay seet ci nit mooy jikkoom xam ne du seet askanam du seet juddoom du seet alalam du seet sax euh, mbindam maanaam mu taaru wala mu ñàkk a taaru du seet euh, dëkk ba mu dëkk waaye li ko amal solo rek mooy jikko ama loolu mu wax ci suratul mulki bismillahi rahmani rahim tabaraka alladi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqa almawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala maanaam dafa wax ni rek euh, daf ñuy natt moom suñu borom di seet euh, kan ci yéen mooy ki ci gën a rafet jëf xamante ne jëf jooju jubluwu ci dara duloo rek euh, jikko ju rafet nga xamante ni moom la tàmbalee saar boobu di suratul mulk su ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon koo xamante ni moom nag moo ñëw nag Euh, daal di ñuy euh, leeralal li nga xamante nii mooy jikkoom waaye nag mooy ki nga xamante ne nii moo ràngoo xeeti jikko yu rafet yëpp moo tax suñu borom euh, bi mu koy tagg ci alxuraan tagg na ko sax fu bari wax dëgg yàlla waaye nag ci jikko nag ci la ko gën a tagg moo tax boo jëlee saar bi nga xamante ni mooy sootul xalam dafa wax ne bismillahi rahmaani nuun wal xalami ma yasturuun ma anta bi nicmati rabbika bi majnuun wa inna laka la ajran gayra mamnuun wa innaka la ala xuliqin azim nga xamante ni euh, saar boobu mi ngi wàcc fii nga xamante ni mooy makkatal mukarrama yonent bi nag sallallahu nekkoon ci ay xat ay jafe yu metti nga xamante ni euh, yëfari màkk yi xeetu euh, kàddu yu ñaaw yu ne teg nañ ko ci kawam ba di ko tuddee sax koo xamante ni euh, dafa nitoo di ko suñu borom nag wàcce ci moom euh, saar moomu euh, di ko defal waaye dafa wax ni giñ naa ci nuun yàlla moo xam lam ci jublu waaye na am ma sax ñu wax ni tuur la ci tuur yonante bi sallallahu alayhi daal ne maa ngi giñ ci xalima gi ak ci li nga xamante ni moom lañ bind daal di koy wax na ko nag nga xamante ni moom laa wàcce ci yow muy alxuraanul karim ak diine lislaam mu doon xéewal Euh, taxoon na nga nekk di ko nu tee di ko euh, daal di koy wax nag euh, ne ko nag dig naa la yoon bu rëy boo xamante ne du dagg mu waaye tamit nag yaa ngi ci jikko ju rafet nga xamante bu bu doon façon naaru góor jikko yonante bi mu ngi ci kawam nga xamante ni muy tagg wu rëy boo xamante ni suñu borom tagg na ko ko waaye eh, da ngay gis ni eh, jikko jooju boo ko seetloo yonent moo wax ni toll na ci eh, juróom benn fukk ak juróom benn maanaam 66 di dëppoo limu allahu waaye nag ñu baax ñi ngeen fii dégg ñëpp moo xam ca yonent ya moo xam ci wàlliw yi ku ci ne rek daf ci am ay jikko yoo xamante ne da koo jël ci jikko yooyu waaye nag mennum yonent bi nag sallallahu alayhi mooy ki nga xamante ni moo jikko yooyu yëpp moo tax moo demee ci téere bu màgg bi di muqaddamatul amdah fi mazayal miftah da nga dégg Sëñ bi mu koy tàgg ci jikkoom dafa wax ni ko labista fiyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla nga xamante ne ni daf ne ko euh, sol nga yére yi yi nga xamante ne ni moo di ay tedd nag sol nga yére yi nga xamante ni moom mooy ngëneel waaye itam sol yére yi nga xamante ne mooy yére yi kawe waaye daal di ko xam ne ko nekk na ci yow nag yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yoo xamante ni lottal na euh, bépp nit ku baax am ne kullu jooju kenn génn ci su ko defee nag euh, jikko yooyu suñ borom bokk na ci euh, lim ko tagg ci alxuraan fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fawwan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah foofu dafa wax ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum yërmande joo xamante ni mi ngi bàyyi ko suñu borom ci nga nag daal di nooyee nepp ñeel yi nga xamante ni ñooy saxaaba yi ndax yonante bi bokkoon na ci ay jikkoom muy dafa noonoon leenul jaanib mooy koo xamante ni ku lewatoon la waaye nekkuloon fab ba mooy koo xamante ni eh, dafa soxoroon xalidal qalbi doon koo xamante ne ku aay xol la woon waaye nag yàlla na mun a ko boo melam noonu kon eh, saxaaba yi nga xamante ni yëpp eh, dañ laa wër kon danan dem seen yoon ba jeex nga lan fabbu min xawlika jooju mooy kenn du fa des waaye dafa doonoon koo xamante ni ku lewetoon la su ko defee nag bu ñu ñëw nag ci eh, jikko yi eh, ni ma leen ko waxee rek dafa doon yu bari ndax juróom-benn fukk ak juróom-benn bu bari na lool moo tax dafa am yenn net yoo xamante ni moom lañ ci jël biñ ci jëkk rek mooy boobu mooy junj muy rahma muy yërmande xam ni eh, yàlla ci boppam moo ko ko tuddee waaye tam moo koy ko tagge ndax boo jëlee aay bi nga xamante ni mooy la xat jaakum nga xam dañ wax ni sax bi ñuy dajale alxuraan mooy aay bi ñu mujjee gis xamante ni kenn ci eh, saxaaba yi sax moom moo ko eh, indi te fekk da charte bi moo di faw ñaar eh, dañuy seede waaye nag bi nga xamante ne demee noonu Seydina Aboubacar dafa xam ne moom mii dégg naa bi siyante bi ne benn seedeem wecc na ñaari seede waaye boo demee bay jeexal la aay boobu suñu borom raufun rahim moom la tudde foofu yonante bi mooy ko am ñeewante la waaye tamit eh, ku am eh, yërmande la moo tax moom ci boppam wax na ni eh, innama ana rahmatun muhdaat nee na man mi yërmande la laa joo xam ni suñu borom daf ma def ma nekk kado ñeel li nga xamante ni mooy mbindeef yëpp waaye suñ borom ci boppam wax na ko ci alxuraan wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yéen ñu ma loolu da nga nekk yërmande ñeel ñi nga xamante ni ñooy bindeef yi su ko defee sëñ Ibrahim yërmaande dafa am solo lool di jikko ju rafet joo xamante ni dañoo xam nitu yàlla yëpp dañoo dëppoo ci jikko jooju maanaam amul kenn koo xamante ni euh, am nga tomb suñ borom ba noppi di soxor nga xamante ni euh, koo gis euh, xolam soxor rek doonul nitu yàlla yonent yi na ñoo ñëpp ñoo ko ëppale woon boo defee nag bu leen suñu borom yónnee eh, dañuy bëgg eh, ñib leen yónni ñoom ñëpp ñu texe moo tax coono yi nga xamante ne ñëpp doon nañ ko daj eh, loolu moom moo ko waral moo tax suñu borom wax ni irhamu man fi l-ardi yarhamukum man fi sama na ngeen yërëm ñu nekk ci kaw suuf bu ko defee ki nekk ci asamaan yërëm leen nga xam ne loolu waxin la rek waaye suñu borom moom mi ngi fépp wala boog lépp mi ngi ci suñu borom su ko defee nag yërmande jooju nag yonent bi da koo amoon lool bokk na ci bi nga xamante ni bii euh, waa Màkka sonal nañ ko lool ba muy euh, ut wàllu nag te loolu lépp bëgg rek euh, ñu ñu texe mu daal di dem nag ci dëkk bi nga xamante ni mooy Taif Taif kon xamoon na ni ay nijaayam fa la ñu nekk mu yaakaaroon ne sax buñ fa demee danoon am yërmande ci moom bi mu demee giir gu ñuy wax Saqif ñoom la dem ci ñoom fekk na fa ñetti kilifa. waaye ñu doon yi nag ñàkk teggin ndax ki mu njëkk a waxal da ko wax ne moom yow moom euh, du ma wax ak yow ndax gannaaw yàllaa la yónni euh, nekk nga ci niveau boo xam ne moom du ma wax ak yow tuuti naa ci wax a yow fekk yow sabote la ci jublu keneen ki nag euh, daal la koy wax ne yow du ma wax yow ndax koo xamante ne day waxal yàlla lu dul dëgg kooku moom du ma wax ak moom bi bi loolu amee yonent bi ne leen nag da ngeen ko gannaaw gëmu leen ma ngeen bàyyi ma ma euh, génn ndànk dëkk bi delluwaat màkk ñu ne ko waaw waaye nit ku bon moom ku bon la rek ndekete ay war la ñu bi yonent bi jugee rek ñu daal di wax eh, jigéen xale yi ak ñi nga xamante ne seen xel yi matul ne leen nañ ko topp eh, sànni ko ay xeer mu doon lu metti nga xamante ni sànn nañ ko ay xeer ba tànkam yi dagg bay nàcc waaye seet Seydina Jibril ci saa seet da koo dikkal ne ko suñu borom moo ma yónnee ci yow nee na ñaari doj yi nga xamante ni moo seq taayif boo joxee ndigal léegi ma daal di koy dajale bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal di faatu léegi dem safara waaye yonent bi da ko wax ne ko déedéet eh, yàlla yàlla nga leen yëram ndax ay nit lañ yoo xamante ni dañoo xamul daal di wax ni amaana sax ñoom ñooñu seen digg yooyu am ci ñoo xamante ni bu ëllëgee. mu eh, euh, dugg ci lislaam xamante ni noonu la mujj demee ndax waa Taif képp mujj nañu euh, daal euh, nekk ay jullit nga xamante ni yërmande ji moom boo ko toppee dafay gudd lool waaye bokk na ci li nga xamante ne ni mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne day jokkaloo ak yërmande jooju mooy ku tabe la woon eh, tab tam bokk ci jikko yi nit ku baax nga xamante ne nii dañu wax ni nit ku baax du may ndax may dafa bokk ci jikko yi nga xamante ne nii yàlla bëgg ko moo la wax ni wa man yuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflihun yàlla nee na képp koo xamante ni fexe nga ba sa nayu bakkan euh, not nga ko nee na kooku ku texe la kon wax na ni tam ku nay euh, ku dafa wax ni ku ku tabe ku jege yàlla la ku jege nit ñi la ku jege àjjana la waaye ku sori safara la mu ne nag ku nay ku sori yàlla la ku sori nit ñi lañ waaye nag ku jege safara la yàlla suñu borom musal moo tax nag ku ku nay euh, du du nekk nitu yàlla yonent bi nag ñu bari sax dañuy wax ni euh, amul woon waaye moom euh, lépp mu ngi woon ci loxoom waaye moom ci boppam moo seexlu woon àdduna nga xamante ne ni loolu na ko nit ñi xame noonu bu baax a baax ndax daan na wax ni bi ko suñu borom yónnee mu nekk ci màkka goo nga xam ni gàddaayagul màkka ku ne gis na eh, dojee nam toll maanaam montagne am donte sax madina am na ko waaye màkka da koo gën a bari la gën koo rëy doj yëpp dañ ko daan wax ne ko yow yonent yàlla bi bu la eh, soobee nga eh, wax léegi rek ñu nekk wur sax xaalis ngay fab ñu jariñoo mu ne déedéet soxlawu ma waaye da gis ni lépp lu mu yore woon rek da koy daal di joxe ba Euh, noonu ba sayyidatuna Aïcha waxee ne daan nañ toog ci kër gi du toll ci ñaari weer yoo xamante ne al aswadaani moom lañ doon jëfandikoo moom mooy ñaari ñuul yi mooy euh, tàndarma ak ndox loolu nga xamante ne lu yéeme la ci kilifa gu toll ne yonante bi sallallahu alayhi wax na tamit moom sayyidatuna Aïcha nee na tabee woon na noo xamante ni moo gën a tabe ngelaw nga xamante ni loolu misaal la ci arab yi doon joxe na ngelaw ni mu gaawee xamante ne lu ñëw rek maanaam du ko euh, du fa fekkante du ñëw rek euh, joxe na ndax man tamit tab boobu nag euh, bokkoon na ci jikko yonent bi xam ne arab moom lay wax a asaxaa moo tax ma moom la ko sëñ Tuuba di taggee ci muqaddamatul am ndax bi nga xamante ne ni da koy indi foofu ay jikkoom yu rafet nga xamante boo ñëwee ci xasida gi dangay gis sëñ bi daal tagg na ko ci tagg yu kawe yoo xamante ne ni lépp rek mi ngi nekkoon euh, li nga xamante ni mooy jikkoy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tab googu bokkoon na ci euh, ay jikkoom waaye nag mu amaat lu am solo loo xamante ni ba tey jii euh, dañ koy jële ci yonante bi jullit ñëpp war di ko ci roy mooy nag dëggu xamante ni dëggu mooy sédd ko boobu dafa bokk ci jikkoy yonante yi nga xamante ni ku suñ borom musa yónni rek am na ñetti xeeti jikko yoo xamante ni faaw Euh, da ngay euh, day nekk ci yow bi ci njëkk mooy al sadqu bi ci topp mooy al amaanatu bi ci topp mooy al tabliir euh, bi ci topp nag mooy al xasaana ñeent dañ ko ci dolli mu ñeenteel ko sidqu boobu nag mooy dëggu xamante ni ab jullit dafay dëggu saxaanu dëggu nag mooy wax lu dëgg lool nag jamono bii mu bari lool nga xamante ni jàpp nañ ni sax léegi daal am amatul solo ci moom lu mu bëgg rek Euh, mën naa euh, fexe daal ba génn ci doonte sax day wax lu dul dëgg te ab jullit moom du du du mel noonu moo tax yonent bi dafa nooroon ku dëggu am na bis mu toog nii am ku dikk ci moom ne ko ndax jullit dana euh, def nangam lu may damay bañ a jaar ci yooyu ndax bëgg moom mu woyof te yooyu yu diis la yonent bi ne ko waa bu sàgganee mën na koo def mu ne ko ndax dana def nangam mu ne ko waa bu sàgganee da mën na ko def waaye bi mu egsee ci wax lu dëgg yonente bi dafa jug toog daal ne ko jullit moom du fen nga xamante ni kon loolu lu ama am solo la te jullit ñi fi mu nekk nii ci bari ñi koy tuddewoo bokk eh, dañuy eh, wax loo xamante ne nii eh, bu ñu fa jógee rek pare nañ ci nga xamante ne nii daan wax lu dul dëgg moom defuñu ko muy dara seet ko boobu nag suñ borom dafa wax ci làmmiñ yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki du dañ di wax dëgg waaye nag di def taxarre yi boo ko déggee sëñ Birahim mooy euh, dafa doon lu metti loo xamante ni euh, li lay wër mooy tax doo ci mën a génn waaye nga gëmm rek nekk ci nekk ci jànkuwanteeg moom moom la ko olof di euh, di ci dem di ci dem bañ bind la fa suñu borom siddiq siddiq mooy koo xamante ni ku dëggu la moom la Seydina Abu Bakarin garaat boobu moom laa amoon ndax yonent bi dafa waxoon ni képp koo xamante ni woo naa ko ci sama saxaaba yi ci diine lislaam ji am ma lu ñuy wax taraddut mooy hésité na nee na ba mu des Seydina Abu Bakrin nee na moom ma ko woowee rek euh, ci la euh, dafa daal di sóobu waaye gis nga tur woom mi ngi ko am bi yonent bi defee euh, isra bi ak miraaj bi maanaam ma Makkatal Mukarrama dem Madinatul Munawwara dem dem fa fële Baytul Maqdis doxu guddi moom la ñuy wax isra waaye nag bi mu jógee foofu nag dem nag sidratul muntaha muy def miraaj bi moom mooy yéeg gi mu yéeg nag dem ci asamaani juróom-ñaar bi yonent bi dikkee nag di leen nettali xibaar bi daf leen a jaaxal lool ndax euh, boo jigee Makka dem baytil maqdis yaa ngi koy def ñaari weer bu dee asamaan yi nag moom ñoom xam naa xamuñu woon sax guddaay bi ndax euh, dañ wax ni asamaan yi juróom-ñaar lañ waaye diggante asamaan su ne doxu juróomi téeméeraat bi nga xamante ni kon euh, gudd dox bu gudd la mu ñëw na di leen nettali yi waaye Seydina Aboubacar daf ne ko bu fekkente ni moo wax ne euh, rañaan na moom wax na dëgg waaye sax am na loo xamante ni moo gën a euh, kéemaane loolu te wax na ma ko mooy xibaar yi muy jëlee ci asamaan yi juróom-ñaar mu ne ko tigi sax dem naa ci euh, asamaan yooyu mu ne ko nag wax nga dëgg ci la ko nag yonent bi tuddee siddiq mooy koo xamante ni ku dëggu la tur woowu tam moom la sayyidatuna Maryam amoon nga xamante ne nii moom it siddiqa la woon kon dëggu doon loo xamante ne nii eh, nit ki moom ñu ko doon rey sax eh, na dëggu ndax eh, sëñ Tuubaa dafa dem ba wax ni alxuraan yi li muy màgg màgg màgg boo ko dee jàng te fekk doo wax dëgg nee na wax dëgg te bañ a jàng alxuraan sax moo gënal yàlla di jàng alxuraan ba noppi te doo wax dëgg kon loolu dafa doon loo xamante ni lu lu yéeme la kon euh, wax lu dul dëgg ci jamono bii nag bari loo rawatina sax ci politique bi day gis ñoo xamante ne dañoo wax ne politique moom lépp daggan na ci waaye nag euh, lu bon moom du baax mukk waaye tamit euh, lu baax it du bon mukk boo ñëwee sootul maayida suñu borom dafa wax ne laa yastawil xabiisu wa tayibu walaw ajabaka kasarul xabiis fattaqullaha yaa ulil albaabi laallakum tuflixuun neen lu baax du yem ak safaan mukk lu bon donte sax lu bon dafa baree baree bare ba yéem la kon mën a nag euh, na ngeen ragal yàlla yéen yi nga xamante ne ni yéenay borom xel yi nga xamante ni kon ku am xel nag moom mooy euh, ràññee loolu. léegi nag bu ko defee nag euh, mu amaan na beneen jikko boo xamante ni bu am solo la bokk tamit ci jikko yi nga xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jikkoo woon mooy nag jikko ji nga xamante ni. mooy alxilmu xam nga dafa nduróog raxmata ñaar lay bokkul mooy lewet waaw lewet dafa euh, doon loo xamante ne ni euh, safaanam mooy euh, fadl mooy koo xamante ne ni daal dafa doon ku sévère te dafa doon jikko joo xamante ne ni itam bu jikkoy jullit nga xamante ne ni jullit moom mën na am fulla mën na am fayda mën na am li nga xamante mooy tey li olof di wax tey Euh, waaye nag euh, du doon koo xamante ne ni dafay soxor dafay sévère moo tax nag xelmu boobu dafa bokk ci yi ko suñ borom euh, tagge waaye tam ngay gis Sëñ Tuubaa ci raaya mu tagge ko loolu yonte bi mooy koo xamante ne ni lépp loo xamante ne ni nit wax na ko ci safaan wala moo def ko da koy daal di muñ nga xamante nii ni du mer ngir loolu nga xamante ne dañu wax ni sax euh, moom ci boppam moo wax ni kaadal xaliimu an yakuna nabiyan loolu moo doon lu yéeme nee na tuuti rek ku lewet euh, nekk di euh, ab jullit nekk ab yonant même sax nekku ab doon doonte sax ak yonant amatul waaye dafa wax ni rek ku lewet moom tuuti rek mu nekk di ab yonant nga xamante ni kon lewet dafa baax ci kilifa nga xamante ne nii boo nekkee sax borom kër nekk ak say soxna soo lewetul rek kër gi du neex waaye bu fekkente ni dangaa nekk ab sëriñ soo lewatul rek moom it euh, day doy waar ba ci sax ak buur buur bu fekkente ni dafa soxor moom it ñam ñam ji jirif yëpp day metti ci ñoom nga xamante ni kon lewet googu moom la ba sëñ Tuubaa sax di ko misaal ci euh, maanaam montagne yi nga xamante ni noonu lay Euh, dékoo yi nga xamante ne moom la ko nit nit ñi di teg nga xamante ne du yëngu waaye tamit du wax dara mu amaat tam beneen mbir moo xamante ne mu am solo la ci jikko yooyu ndax eh, jikko yi dafa bari mooy sabru <coughs> muy muñ nga xamante ni muñ dafa waxal boppam ne sabru laa yaati illa bi xayr nee muñ moom foo ko fekk rek fam ñi mujjee mooy yiw rek moo la di wax ne ku muñ muñ xamante ah, ne nag euh, muñ googu na ñu bëree bëri dañoo muñatul surtout sax su ma ko jëmalee ci ñaar ñi nga xamante ni ci ñoom ñoom lañ ko war a gën a yaakaare waaye tam ñoom ñoo war a gën a mën a muñ mooy ku ñu yilif te ñaar ñooñu mooy jigéen ak xale nga xamante ni bu dee jigéen moom Euh, yonante bi ni mu ko waxee bu ñëwee àdduna ba këram muy génn àdduna dañ koy yilif waaye moom du yilife xamante ni bu nekkee euh, ci euh, ay ñaari way juram moom day ñooy nekk ay kilifaam bu amee borom kër nag rawatina boroom këram mooy nekk kilifaam nga xamante ni ci borom kër googu sax ci la ñuy gën a ñëw jigéen ñi war ko déglu bu baax moo di rek tey jii bu fekkente ni da am boroom kër moom mooy eh, nekk sa sëriñ waaye mooy nekk sa sang waaye nag mooy sa kilifa nga xamante ne nii eh, waroo wuuteeg moom ci dara su ko defee na loolu li la koy may nag mooy sabarul jamil mooy muñ gu rafet boole lu la neex ak lu la naqari waaye du caagee ni lu la naqar rek nga nga manifester ko du caagee loo ñàkk rek daal di koy eh, manifester wax ko wala boog nga jëf ko ba ñëpp xam ni. Euh, am moo lu xew nga xamante ni kon euh, jigéen ñi dañoo war a euh, dolli muñ bu baax a baax royee ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam bu dee xale yi tamit jeunesse bi naka noonu moo tax gisoo gaal yi ñi nga xamante dañ koy jël li ko waral mooy ñàkk a muñ rek ndax dañ naan moom faaw rek danañ am te am moom mi ngi nekk ci loxal la suñ borom suñ borom dafa dogal ñii dañuy am lu bari ñii am lu yemamaay ñii am tuuti ñii duñu am dara waaye bu fekkente ne nag suñu borom dafa dogal ci yow amagoo kon euh, nga mu ni faw danaa am rek day doy waar te dañu wax ne sax sëñ Ibrahim wërsëg bi balaa mu laa wuy si dëgg dëgg dëgg dëgg faaw da euh, lu jege juróom fukki at waaw balaa mu laa wuy si dëgg dëgg am na ay cas am ñoo dañuy judd rek fekk seen i euh, am am ñu ànd ak am ga noonu wala sax ñu donn ko wala yàlla def sax ñu tàmbalee liggéey rek mu wuy si leen waaye foofu tamit mu am ñuy ñetti yëf yonent bi wax naam ni faaw nañ ko ci tàbbal mu am solo lool dafa wax ni alal ji nga xamante ni moom lañ bëgg di ko wut euh, ku ne bëgg am ci euh, li nga xam mooy fortune alors di ko wax sarwa taila mooy alal ju bare bare bare nee na képp koo xamante ni am na ko faw rek ñett yi benn daan la ci dal wala ñaari wala ñett yëpp wala yaasu billah benn bi mooy euh, faaw rek nit ki day gàtt xam nga nit ñi ngi bëgg alal waaye menace la ci gàtt fan beneen bi ci des mooy njaboot gu jubati yonte bi nee na boo rëccee ci gàtt fan faw sa njaboot moom du ñu jub à cent pour cent bi ko ñetteel na mooy xam-xamu sharia bu leer nee na na euh, gisoo boo seetee Richard yi nii aay yu jub sax mënuñu ko wax nga xamante ni loolu la yonte bi wax moo tax li li am solo daal mooy fajuk aajo waaye lépp loo xamante ni bëgg ko rek suñ borom ci ay ajo mu fajal la ko loolu loolu ak tam barke barke moom wax na ko sax xadis boo xamante ne nee na euh, barke dafa euh, gën barile moom bi moo ko wax ndax nee na euh, nit ki moom bu bari barilee rek mën na sam aajo yoo xam du ko mën a lijjanti waaye barke moom boo ko amee moom loo bëgg a lijjanti da nga koy mën a lijjanti moo tax jeunesse bi nañ delloo seen xel bu baax xam ne am moom mi ngi ci kanam nga xamante ne nii yaa ngi dem di sàkku dara te fekk sa gënu ci wa asa an euh, takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun amaana ngeen bañ dara te fekk moo gën ci yéen amaana ngeen bëgg dara te sax euh, gënul ci waaye mu amaat beneen mooy ni ñuy dem di laxas di euh, tukki léeg am ko xamante ne sa dëkk ba mu bon ginnaaw di dem dëkk boobu fa la yàlla dogal wërsëgam loolu lu yéeme yéeme la te yonent bi dafa waxoon ni bokk na ci xéewal yi suñu bonoon defal nit mooy fa mu dëkk suñu bonoom defal ko li nga xamante ne nii mooy euh, wërsëgam foofu waaw moo dellu wax ni euh, safaru qitaatun min al azab nee na tukki dogit la euh, ci mbugal daan na képp ku tukkeeti bu fajoo aajoon na gaaw ñibbisiwaat bu ko defee nag sabru boobu sax dafa doon sëkk waxtaan wi alxuraan wax ci lu baree baree bari inna allaha maa sabirin yàlla nee na maa ngi ànd ak way muñ yi fi mu nekk nii ndigal yi suñu borom joxe ngir nga eh, def ko ni mu ware da ngay muñ lim tere ngir nga bàyyi ko da ngay muñ nga xamante ni kon eh, faw rek muñ moom nit ki dafay eh, jiital muñ ngir nag mu mën a am li nga xamante ni moom la bëgg waaye mu amaat beneen jikko muy alxayaa xayaa dafa euh, moom la olof di wax kersa nga xamante ni euh, daf ne alxayaa wal imaanu qurana ida rufia ahaduhuma rufia euh, ahaduhuma al axar yonte bi nee na kii kersa ak gëm yàlla nee na ay dañoo lëkkaloo maanaam daal ay cheikh lañ nee na bu benn bi dañee rek nee na beneen bi dafay daal di dañ waaye nag li tax ma toftalee ko noonu kersa baax na Euh, ci mag waaye baax na ci kilifam euh, baax na ci kone waaye ci këm gën a baax nag mooy ci jigéen ak ci xale nga xamante ne nii dafa wax ni euh, bu fekkente ne nii amoo keesa ci dara maa lu la neex rek na nga ko def bu ko defee jigéen ñi sax yonent bi dafa wax ni bànneex bii dox diggante góor ak jigéen nee na ci ñoom la gën a bare ba joxe na ko sax misaal ne bu doon téeméer juróom-ñeent fukk bi yëpp ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom la la la ëppee waaye ne suñu boroom moo sànni ci ñoom kersa ci sax nag kersa googu boo bis bu dañee rek eh, àdduna tukki nga xam leen neex na mën nañ koo def bu ko defee tamit bu dee tamit ci xale yi xale tam dafa war a am kersa nga xamante ne nii waroon ne jàkk mag di ko xool waaye tamit eh, dafa tox eh, digganteem ngir mu dugg ci nag ay yëf moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aïcha dafa wax ni euh, ni mu amee woon kersa bu koy misaal ne dafa mel ne ci jëpp jamono di baax na noonu laa koy misaale jigéen joo xamante ne dañ ko doon soog di maye mu nekk ci euh, euh, li nga xamante ne mooy xëdre mooy awdaj nga xamante ni dañ ci daan dañ koy jël ji ko teg nii ci kaw gileem jigéen yi di ci nekk xamante ni dañuy am kersa ba nga xamante nii kenn du leen euh, duñ nangoo gis kenn duñ nangu tam kenn gis leen loolu ndax nit ci bu amul kersa rek moom lu ko neex euh, da koy def ni bokk na ci euh, tagg yi nga xamante ne ni tagge nañ ko yonent bi salaa salaam su ko defee nag jikko ji rafet nag sëñ Birahim mooy li tax peuple boo gis mu avancé jëm ci kanam ay jikko yu rafet moom moo koy waral dama dafa am ku ñuy wax Ahmad Shawqi daf ne wa innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in hum dahabat axlaaquhum dahabu nee na euh, maanaam chaab boo gis umam muy xeet yoo gis rek nee na liñ leen di euh, màndargaale di leen ko xàmmee mooy ay jikkoy rafet nee na buñ sàggane sàgganee ba seen jikkoy rafet dem nee na dara desatu fa nga xamante ni kon Euh, jikko ju jikko ju rafet moom mooy lépp nga xamante ne dañuy wax ni nag nit ki ci boppam na moo koy euh, incarné mooy fexe ba euh, jikkoom rafet ndax suñ borom bi mu bindee doomu aadama da ko mooñaale ak yu bari sëñ Abdoul Ahad Mbacké mu tedd mi di maamu sëñ Bachir wax na ko nit koo gis rek jikkoy dawkat mi ngi ci moom muy xaj ci ñi ko xamul jikkoy golo jikkoy mbaam jikkoy fas jikkoy xar waaye waaye nag jikkoy nit su ko defee na jikko yooyu yépp nag moom moo koy segg di ko segg nag ba nekk na ba yoroon jikko yi nit <laughs> waaye da nga ciy gis ñoo xam neexul ba neexul <laughs> buñ jëflanteeg yow <laughs> doo xam yan xeetu jikko lañ yore ba jikko yi ma tudd faaw rek nga gis ci benn ci ci ñoom nga xamante ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu gënee moom gën na ci fànn yëpp ci askan ak ci juddoog ci meloog euh, ci lépp rek waaye nag ci ci lim gën a euh, gëne nag mooy ci jikko sallallahu alayhi wa sallam ni moom dañ wax ni euh, yonent bi moo ko wax ku la gën jikko mooy ki nga xamante ne ni moom moo la euh, gën nga xamante ni moom la su alxuraan di wax rek inna akramakum inda allahi atqaakum maanaam ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla te ragal yàlla jooju bokk na ci jikko yi gën a kawe gis nga bokk na ci jikko yonent bi mooy dafa doonoon ku ragal yàlla yàlla jooju nag da boo ko dee seetlu sax dafa doon jikko joo xamante ne nii euh, dafa man euh, ndàmbe jikko yëpp maanaam jikko yëpp dafa dugg ci moom maanaam ragal yàlla nag euh, bi ñu ko laajee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dafa ne mooy jëfe ndigal bàyyi ay tere xamante sax am nañu ko taawil <coughs> guddal ko lool waaye ñaar yooyu rek boo ko xoolee rek moom mooy ragal yàlla boo ko seetloo tamit baat bi ci boppam mooy euh, loo xamante ne ni da nga ko fay da nga ko fay wóoy maanaam tere yaa ngi nii nga daal di ko fay bàyyi euh, jëf ndigal yaa ngi nii nga dox jëm ci dañu wax ni sa tere yi moom mënees naa bàyyi lépp waaye itam jëf yi maanaam ndigal yi moom kenn mënta def le waaye da nga ciy def li nga mën am na sax ñu ko message ragal yàlla mooy rek nga sol yëre yu weex tàll nee na soobu manting moo xamante ni dafa lënd poussière euh, am ay ban yoo xamante ni dafa taqrib waaye nag nga neebu nag euh, ndox xuus ba jàll te mbuum mi amul benn tache amul benn tomb loolu jafe na loolu nag mooy taqwa muy muy ragal yàlla waaye ragal yàlla googu nag suñ borom dafa ne innama yataqabbalu llahu min al muttaqin nga xamante ne nii euh, jëf yi ñuy jëf sax suñ borom dafa ne lim ñu ci mooy ragal yàlla moo tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon nag ki gënoon a ragal yàlla ci mbindeef yëpp moo tax nag euh, danaan wax ne attaqwa haahuna maanaam mu ne ragal yàlla mi ngi fii joxañ li nga xamante ne nii mooy euh, dënd bi moo tax sax bi suñ boroom euh, wax wane ko bismillahi rahmaani rahiim inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siraatan mustaqiman وينصرك الله نصرا عزيزا euh, bi aaya wàcc fekk mi ngi jóge euh, foofu nga ni euh, mooy Màkka mooy sulxul xudaybiya si nag fi mooy Madina mi ci kaw gileem waaye dafa yës ndax diisaayu alxuraan bi bi ñu xëyee fajar na moo ne bii ci guddee suñu borom wàcc na ci man saar boo xamante ni moo ma gënal li jant bi di tiim moo ko gënal daal àdduna ak li ci biiram waaye nag ci la tàmbali nag naafilaam yooyu ngeen di dégg mu di ko def donte daan na naafila waaye da koo yokk ba tànk yi di newi sayyidatuna Aïcha ne ko yow yonent yàlla bi xanaa di yow la suñu borom wax li yaxfira laka allahu ma taqaddam min dambika wa ma taaxar waaye dafa ne ko afala akuna abdan shakura xanaa du ma nekk di jaam buy sant nga xamante ni kon loolu muy dëgg-dëgg euh, li nga xamante ne ni mooy ragal yàlla xam day feeñ ci wax <coughs> day feeñ ci jëf waaye day feeñ tamit ci jëflante comme ma jeexal rek euh, ci benn ci jikko yi ndax euh, jikko yi moom ma la ko waxee rek euh, dafa bari waaye nag jikko ju ne rek boroom xam-xam yi joxoñ nañ maanaam benn boo ci jël rek dañoo wax ne sax boo boo ko nekkee di ko di ko jëfee bu yàggee rek yeneen jikko yëpp dafay daal di ñëw bu ko defee nag mu am tamit jikko ju am solo joo xamante ne ni dafa raar nii ci jamono te nit ñi war koo bàyyi xel bu baax ndax dafay gën a euh, kii maanaam rataxal diggante mbokk gi mooy ni yonante bi salaa salaam meloon mooy nag euh, bëgg nag li nga xamante ne ni mooy euh, nit ñi bañ sax gënal la yow sa bopp xam nga lu doy waar loolu la arab bi al isaar wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa nga xamante ne ni loolu la suñ borom tagge woon saxaaba yi xamante ne daal moo la ko dee firil daal mooy njëriñ bu dee benn yéen ngeen nekk mbooloo di nga ko àttana ñàkk ngir euh, mbooloo mi bu fekkente ni ñaar ngeen tamit di nga ko àttana ñàkk ngir sa mbokkum euh, taalib wala boo sa mbokkum jullit waaye li xew jamono bii nag mooy bopp sa bopp <laughs> ak njëriñ loo fekki waaye loolu moom du woon jikkoy yonante bi waaye nag du jikkoy saxaaba yi dañoo disa am na bis ñu tegal leen nii euh, ndawal yonent bi leen rek ñu ci xamante ni ñu ngi koy lekk waaye daal ku ci daj rek day koy daal di pour sa morom neen noonu def ba jóge ci euh, ndab la waaye kenn laalu daa nga xamante ni kon loolu lu ama am solo la bi ñu defee sax xar oxot ni metti ñu rey si juróom benn fukk am na ñoomante ni faatooguñu bi ñuy jël ndox mi di leen may sa xam ndox boobu dafa jafe waaye dangay gis moom dañuy jël ndox mi ngi mar bi nga xam ba xamante ni mar ma doy na waar waaye day wax ni ndax diw mi ngi dund ñu naan mën a demal nga jox ko ndox mi xam loolu lu yéeme la nga xamante ne léegi loolu nit ñi moom dundatuñ loolu moo doon isaar waaye moom da ngay gis ni rek euh, gisoo mooy li xew nii rek ci xëccoo yi ñuy def maanaam daal yow daal yaa fii ne waaye bu fekkee ne ne léegi dangay gis sax ko xamante nii bu fekkente ne mi ngi fi sax di doxal yi fi tegu ci yoon dañ koy xajamal ndax dañuy bëgg ñoom daal ñoom ñoom ñoo fii ne te loolu du jikkoy gor sax waxuma laa doon eh, jikkoy julit nga xamante ni isaar boobu rek eh, sëñ Ibrahima dafa am solo lool loo xamante ne nii nit ñi war nañ ci te dafa am secret bu ci def nekk nii sa mbokkum julit loo yonti waxoon ni laa yàq moolu imaanu ahadikum xata eh, yu li axihi maa yuxibu li nafsi kon dafa xam ne gëmu kenn ci yéen lu mat dara du rek lim yéene boppam moom lay yéene mbokkum julitam yooyu eh, fi mu nekk nii eh, secret bi ci ne moom laa leen di loolu boo defee sa bopp sa sa ni sa bopp nga lépp doo ko yéene rek la koy fay dem sa bayante wax ne fi mu nekk nii boo dee ñaan nii fekk di ñaanal sa mbokkum julit yëgul tinul nee na ñaan googu mooy ñaan gi gën a gaaw a nangu te lépp loo ko ñaanal malaayka yi dañuy wax amiin ak yow maanaam yow moo yow mi ngi koy ñaanal yow mi koy ñaanal yaa koy ëppale yow moomu nga koy ñaanal nga xamante ni kon nit ñi buñ ko xamee woon loolu xam mi man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha lépp loo def ci lu baax rek sa bopp rek nga ko defal waaye lépp loo def ci saxaan it suñ borom ci maanoom dala koy dencal ni ko sëñ Abdou Lahad Mbacke mu tedd ma wax ne amul fu ko denc <laughs> maanaam daal boo defee lu baax moom yàlla lu baax la benn bu baax boo def euh, fa lahu ashru amsaaliha da koy da koy def fukk waaye na boo defee benn bu bon bu safaan amul fu ko def dala koy delloo rek su ko defee kon nañ yéenante jàmm kenn ku nekk lim yéene moroomu lim yéene boppam boobu muy yéene ko moroomu waj'al quluubana ala tawaadudi bila tanaazuin wala taxaasumi wala taxaasumi wala tadaaburi wala tabaagudi wala tanaafuri waaye nag xataa nasira muslimina xaashiin nga xamante ne sa kon loolu wane na ni kon dëgg dëgg julit noonu lay mel ndax Sëñ Tuubaa loolu la wax kon su ko defee xam naa bu ñu ko toppee ci koy moom dafa bari bu ko defee kon nañu jeexal ko ci isaar boobu léegi nag di ñëwaat nag euh, ci lu am solo muy asalaatu ala nabi muy julli nag ci yonante bi sallallahu alayhi wa dama julli ci yonent bi dafa doon jaamu yàlla gu mag goo xamante ni mooy jaamu yàlla goo xamante ni képp ko ko def suñu borom da koy naw amul lu yéeme yéeme la waaye fi mu nekk nii mooy julli goo xamante ne nii boo ko dee def mën nga bañ a ànd ak laab man dan doon nañ ko léebu sax Seydina Ali da ko kuy julli te fekk euh, jàppuwul sanguwul léegi nag moom ci xam-xam bu bari ba mu xamal leen ni mooy salaatu ala nabi waaye nag bu fekkente ne nii ne da nga koo def nag ànd ak jàpp ànd ak laab moom xataan suñ borom da koy eh, nangu ndax dafa doon eh, jaamu yàlla koo xamante ne nii eh, suñ borom ci boppam moo ko njëkk a def ba noppi nag digal ko jullit ñi ñu def ko mu wax ko ci suratul ahzab waaye aaya boobu mi ngi wàccoon ci chaabaan eh, suñ borom wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak i malaakaam ñi ngi julli ci yonante bi kon na yéen ñi gëm yàlla eh, na ngeen julli ci yonante bi te eh, salmal Euh, su ko defee nag euh, julli googu bi mu aay bi wàccee saxaaba yi dañoo dikkal yonant bi ne ko julli gi ñuy def de moom xam nañ ko ndax yaa wax ni sallu kamaa ra'aytumuunii usalli julli leen ni ngeen may gisee may julli nga di ñu jiite ñuy julli waaye julli gi nag moom xamuñu ko yonant bi nag ci la indi salaat ibrahimiya allahumma salli euh, ala muhammadin wa ala ali mu kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama baarata ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi laalamina innaka xamidun majid nga ne loolu noonu la ko waxee moo tax wax ko noonu waaye sajid bi dañ ko ciy dugal ngir bañ koo sàllalu waaw moo tax boo demee ci téere sëñ Chouaïbou yi e, salaatu yëpp bu dul sallallahu ala muhammadin ak yeneen yu demee noonu ak yi nga si ne siyaar yi nga xamante ni seen i borom ñoo ko indee noonu mu bañ koo soppi da ngay gis na ci def sayid ma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد boo demee ci euh, téere bu tedd bi di xuratul ayni da ngay dégg sëñ Fane bu wax ni salaatu boobu mooy bi gën a màgg ci salaatu yëpp nga xamante ne nii salaatu euh, salaatul faatihi dugg na salaatu ummiya dugg na salaatu naariya dugg na Eh, yëpp rek moo ci féete ko nee moo tax sax ñu di ko def ci taaye ju mujj ji ngeen gis sax bu dee waa charq moom lañ gën a eh, fonk eh, su ko defee nag kon salaatu ci boppam ñu wax ci tuuti rek ci njariñ yi nga xamante ni bokk na ci li muy def ci nit mooy daf koy tarbiya tarbiya nag boo ko déggee mooy daf lay yar di nàmm say jikko sëriñ bi sax dem na ba ne cheikhu tarbiya bii sax Eh, muy sëriñu tarbiya boo jàppee ci salaatu an bi dana dem ba remplacé wu te loolu kon lu rëy rëy waaye bokk na ci li muy def ci eh, jullit bi mooy daf koy eh, day raxas ay bàkkaaram xamante ni boo boo ko saxee di ko def da dem ba set ci ay bàkkaar ba dootoo amati benn bàkkaar waaye bokk na ci li muy def ci ay ci nit ki buy bu ko saxalee di ko def mooy dafay yëkkati ay maqaamam nga xamante ni dafay dem ba day nekk ku extraordinaire du nekkati nitu daal nitu ordinaire nga xamante ni dafay wuuteeg eh, ay moroom waaye bokk na ci njëriñ yi nga xamante ni da koy eh, def ci nit mooy da koy marale ak yonante bi eh, sallallahu alayhi wasallam day tax moom ci boppam muy gën a bëgg yonante bi ndax salaatu ala nabi day jëmbat ci xol ki koy def bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit dafay tax tamit yonante bi bëgg la waaye day tax it nga gën a xejji ku dul yow ci yonante bi ndax yonante bi dafa wax ne dee leen euh, julli ci man nee képp koo xamante ne nii euh, mu ëpp lu mu julli ci man moo gën a yey ci man yaa nga xamante ne su ma dee su ma ko doon misaal damay misaal euh, tey jii nii nitu àdduna yi am na ñoo xamante ne ni fañ ne dañuy waaxu rek egg ci ñoom ndax seq nañ ko waaye am na koo xamante ni moom balaa moo jot ci moom benn sax bu mën a jote ci moom giiru dundam wala boog dafay euh, demander audience moo xam ñu nangu ko wala ñu ñàkk koo nangu waaye bu ëllëgee yomal xiyaamati moom fa yonante bi di ne képp koo xamante ni bëgg naa daagu ba egg ci moom na bari li muy julli ci yonante bi euh, salaa salaam waaye tamit sëñ Birahim mu amaat lu am solo muy wërsëg bi nga xamante ni ku ne mi ngi daw dem di ko wuti moo ci gën a gaaw lekk nii boo dee saxal euh, salaatu ala bi di ko def lu bari wërsëg da lay yomb maanaam daal doo doon koo xamante ne nii say mbir Euh, dafay jafe mu nekk nii même njaboot gii ñu bëgg nii soxna yeeg doom yeeg yooyu boo saxalee salaatu ala nabi daf la yomb fawu da nga koy euh, am waaye nag euh, da ngay gis ni salaatu ala nabi boobu dafa am ay siyaax yu bari nga indi naa salaatu ibrahim ya waaye am na salaatul fatihi allahuma a ala a muhammadin alfatihi lima ughliqa walxaatimi lima sabaq nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al-azim nga xamante ni salaatu la boo xamante ni al imam Bikri moom moo ñaanoon suñ borom jox ko daal salaatu boo xamante ni da ci jaamu suñ borom boo xamante ni musta am ci njëkk te dootul amati ci ñu mujj maanaam ci ay yool yoo xamante ni ci lay am moom daal dafa am benn kayit bu jékki-jékki rek jóge ci alxadratul ilahiya nga xamante ni moom sax dafa bokk ci ni ngay gëmee salaatu an nabi dafa bàyyi ko ci suñ borom di alxuraan ñëwee ci yonante bi ñu ñëwee nag bi mu ko téyee li ci gën a yéeme mooy pour suñu portable yi nii moom moo ko wane léegi am écran bi tey boo defee nii da ngay gis mbind mi nga defaat ni mu topp la nga def nii mu topp la kayit gi noonu nga xam ne du du juutu mukk kon noonu noonu noonu la nga xamante ni bokk na ci njariñ li boo ko waxee benn yoon doo dugg safara muy muy salaatul faatihi waaye nag lu yéeme nga xam ne sëriñ euh, Bachir mu tedd nii wax na ko ba nee bi sëñ bi nekkee ci géej bi euh, al imam bikri moomu moo ko joxal boppam sëñ Touba yaa nga xamante ni kon jaarul fenn moom moom euh, sëñ Touba moo ci gëna a xej ñëpp moo tax boo demee ci euh, al wird maxu minallahi wa sati rasul dañ koy def téeméeri yoon suba téeméeri yoon ngoon waaye boo gisee xaside yi sëñ bi taalifaat gannaaw bi yu ci bari mawaaxi boo ak ak ñu am fatihul bishri ak fari bi jaayal Mustafa an ummateek ak yu bari sëñ bi da ci indi salaatul faatiha nga xamante ni kon murit yi ñoo ci gën a xeej ñëpp daa seenub sëriñ lañ ko jox eh, bu ko defee na am ma nag beneen salaatu dañuy tënk rek salaatu ibrahimiya te eh, salaatu eh, ummiya ndax dafa doon salaatu boo xamante sëriñ bi da ci wax dañu wax ne sax salaatu la boo xamante ne yonante bi ci boppam da koo bëgg am na na ay siyaar waaye siyaar bii moom rek laa ci indi mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi ji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima waaye nga xamante ni jafewul te guddul te tamit neex na yonante bi lool dañu sallallahu alayhi wa wax ni salaatu la boo xamante ne ni euh, soo ko dee def suñu borom dafay far say bàkkaar waaw nga xamante ne sax soñ bi joxoon na ci lim rawatina euh, tàkkusaanu àjjuma mu ne képp koo xamante ne nii dafa aju ci man bu julleetee àjjuma ba noppi maanaam bu julleetee tàkkusaanu àjjuma ba noppi balaa moo jóge fa mu doon julli mu def ko juróom-ñett fukki yoon muy quatre-vingts fois léegi nee na boo ko defee suñ boroom noonu binda tuyaabe jaamu yàlla juróom-ñett fukki at faral la euh, bakkaaru juróom-ñett fukki at kon loolu ko ne bëgg na ko xam ne àjjuma bu ne nga euh, euh, def ko su ko defee nag kon salaatu yi mi ngi noonu am na tam sallallahu ala muhammad yi xam dañ wax ni sax mooy salaatu bi gën a gàtt ci euh, salaatu yi nga xamante ni moom boo ko dee def euh, day dafay dox cofeel ak ci nit ñëpp maanaam nit ñëpp nañ lay bëgg waaye faj aajo ni itam moom moo ci gën a waaw nga xamante ni yi may wax ni yëpp sax boo delee ci waxtaanu Serigne Bassirou ture liggéey ko da nga ko ci gis mu ñëw détaillé ko waaye boo demee ci téere bii di xolatul ay ma moom it da ngay fekk euh, sëñ bi maanaam sëñ Chouaïbou détaillé ko léegi ñu ñëw nag ci lenn rek ci nga xamante ni sëriñ bi def na ko ci julli ci yonante bi loo tax dafa am solo lool muy muxaddamatul xidma dafa bokk ci téere yi nga xamante ni loo rek moo ko tax a jóg waaye mu doon téere bu yéeme yoo xam ne sëñ bi mi ngi ko def eh, ci euh, Tuubaa gee fa la ko taalife waaye ci ñetti weer na tàmbali ko ci weer wi nga xamante ni mooy rajab shaaban mu jeex ci euh, ramadan muy téere bu gudd boo xamante ne sax euh, mujj nii bokk na ci may durus nii ci semaine bi laa koy jàng léegi sama yaram tàng na ma jàng ko ci benn bis waaye dimanche laa koy tàmbali ma jeex samedi bu ko defee nag euh, sëriñ bi indi ci euh, juróom-ñaari téeméeri turi yonante bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar maanaam 787 nga xamante ni moom mooy dëppoo ko basmala la ci charte ci ci ñoom noonu ñu koy ñu koy wàññi euh, bu ko defee nag sëñ bi sax moom noonu la ko tërale bu ko tàmbalee alif ba ci yaa léegi nag téere la boo xamante ne moom sëñ bi indi na ci ay tur yonant bi tur yoo xamante ne nii euh, doo ko fekk ci benn téere ni ko Romain yi di woowe ni ko Perse yi di woowe ñi euh, nga xamante ne nii noonu la ko sax jinne yi di woowe ñu ko sax jën yi ci géej gi <laughs> di woowe <laughs> asamaan yi boo ne ni ñu koy woowe nga xamante ne nii mooy miir miir rek muus muus rek taaba taaba maaz euh, maaz al mulha minna nga xamante ne daal sëñ bi moom bàyyiwul dara dara dara moom muy téere boo xamante ni yër ko rek euh, doy na xar baax kon kon képp koo xamante ni mi ngi koy dégg dana wax ne sa am ñetti xeet nag nga xamante ne ni sëñ bi moom la ko def ci euh, téere bi euh, bu ko defee nag kon bokk na ci ba tey it adduru samin adduru samin dafa doon téere bu yéeme boo xamante ne sëñ bi indi na ci ay xeeti salawaat yu bari am na benn jamono sax ma jëloon ko nii di ci def waxtaan ci ci rajo bi waaw mu doon nag téere boo xamante ni ku ko ku dégg rek mën na dem ci ko euh, seet ko si ñu koy jaay bu ko defee man bu ko yëree rek na ci fekk ay fay nag boo jëlee sa téere yi ma Mafatihul Bichri yi wala am ñoo wax jën la te salaatu wa tasliim ala muqiimi sunna wax na ko julli ci Yonent bi ci la ko def mu am ñaari version ci fu mu ko defe ñu Tuubaa la ko defee ñuy wax ni Ceyeen Jolof ñoo ne sax fa la ko tàmm fa la ko defee ne waaye da koo laalaat Ceyeen Jolof yëpp ngeen gis sëñ Bachir mii di ko leeral waaye boo jëlee tam téere bii di euh, taysirul asir fi salaati alal bashiri nadir bokk na ci sëñ mu mujjee def ndax jurbel ci la ko génnee wax ne san nañ koy xatmoo alxuraan waaye gis nga nim mu ko ràbbe da ci indi euh, fukki maanaam euh, téeméer ak fukk ak ñeent saari alxuraan indi lu toll noonu nag ci tur yonante bi téeméer a fukk ak ñeent waaye indi ci nag 99 tur yi suñu borom yi bu ko defee sax boo jëlee Mafaatihul Bichri moom mooy yonante bi sama sama bis biñ ci gën a taamal di ko jàng mooy altine tey siir na saa boo def xatmu bi léegi nag boo jëlee nag li nga xamante ne nii mooy jaalibatu maraaxib fii aajilin ka aajilin di raaxib moom euh, bis aaj moo ci gën Sëriñ Tuubaa nag mi ngi ko defee Maayomba ku ne gis na xisa boobu sànni ko ci ndox mi ku ñu soldat bu ñu Moussa for ko indi ko nga xamante ni moom dañu wax ne sax moo gën a gaaw ci defar nit te ci tarbiya ko ne dafa mel ne daal ko taq ba rip eh, yére yaag yaram waag yëpp waaye na nga sang ko ba mu set fóot yére ba mu set solo ko parfum ko boole ci nga xamante noonu mu setee noonu lay def ci nit rawatina xale yi ñu di ko jàng ndax dana eh, def lu bari daal ci ñoom bu dee nooru daare ni moom ci yoon julli ci yonante bi la ko def wax nañ ni sax mooy euh, téere bi gën a rëy ci bi sëriñ bi def mooy dañ wax ni jurbel googu fa la ko euh, sëriñ bi euh, taalifee ak ak yi fawzul motiya ak ak yeneen boo ko dee wasiratu rubuux ak kanzul muhtadiin nag bare naa nga xam ne sëñ Tuubaa daal amul morom yàlla na suñ borom fayal ak bind lim mettee mu nekk nii discours yi may bind jamono yi rek am da ngay sa wet gi yëpp <laughs> day métti <laughs> waaye sëñ bi moom nga xam ne moom waaye moom moom moom bokk ci moom moom du nit moom waaye nga xamante ni moom nee suñ borom dafa araamal ci man ma bàyyi bind kon nag euh, sanatoan na bi ñëpp la waaye nag dafa rawati nag am euh, murit sëñ Fallou Mbacke moo wax ci làmmiñam ne Cheikhul Khadim googu tur bi mi ngi ko amee ci julli ci yonante bi waaw neen da cee def loo xamante ni kenn mosu koo def nee na moo tax mu am turu woowu kon euh, murit bu ne war nay julli ci yonante bi lu mu néew néew néew euh, bis bu ne junni yoon dafa xam ku julli ci man benn yoon suñu borom julli ci yow fukki ci man fukki yoon suñu borom julli ci yow téeméer yoon ku julli ci man téeméer yoon suñu borom julli ci yow junni yoon ku julli ci man junni yoon faaw da nga dem àjjana am na sax riwaaya boo xamante ne na maa ngi yow du ñu rawante mooy sabbaab bi ak euh, wusta bi ne nii la ñuy rawante xam ne kon ñooy ànd dugg àjjana nga ni comme bu nu ko toppee day bari loo su ko defee kon euh, mi ngi noonu euh, yonent bi jikko yu rafet yëpp moo ko ràngoo waaye tamit euh, salaatu ala nabi sang yi ngeen ci toftal doon lu am solo boo xamante ni kon bis boobu dafa doon bis boo xamante ni murid yëpp waxuma la murid waaye ñëpp war nañ ko bàyyi xel ndax dafa mel ne sax man mosuma ko gis bis boo xamante ni bisu julli ci yonent bi te loolu dafa war a am. nga xamante ni lépp lu ñuy def ci moom rek am na solo waaye nag julli ci moom dafa dafa dafa dafa mel ne delloo ko njukkal la ndax yonante bi lim ñu defal eh, ndax moo ñu sauvé ci safara eh, dafa ndax loolu suñu borom wax wa kuntum ala shafa xefratin min annaari fa anqadakum minha xam ne bu yonante bi ñëwuloon rek moom dara eh, du baax moo tax nag kon nag récompense la maanaam delloo ko njukkal la di julli nag ci moom te gis nga buñ ci doon julli ci moom te amuñu ci dara sax dafa war waxumala nag eh, xéewal yi ak yool beeg ak tuyaaba jeeg ak yu baax yi nga xamante ne yëpp da nga koy am ci julli ci ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi santaat baax sëñ eh, Bachir Touré ci lu am solo lii ndax lii dafa am solo lool ndax yaatal lu baax la rek leen sant bu baax yéen ñi xamante ne yëpp yéen a ñëwoon eh, jël si woon liggéey bi leen ñaawoon bis boobu nga xamante ne mi ngi nekk la 14. Euh, décembre euh, foofu noonu ci tuuba Touba Touba Cham Cham buqa al buqaatul mubaraka wetu jannatu kon ñi ngi ci woo ñëpp rek euh, bu ko defee kon loolu moo doon waxtaan bi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu nekkoon seen bokkum taalibe yi ne Abdoul Khady Samb wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa sant rek sëriñ waxtaan bi am yi nga xamante ni def na ko waaw mu kawe si njort lool sax xëy ndax. indi na ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa yoo xamante ni képp koo dégg rek bu lu baax képp ñore roy yonent bi sallallahu alayhi wa képp ñore di di nga ci dox jëm xamante ne jikko yu am solo yoo xamante ni waxtaan na ci indi ko ci yonent bi indi ci ay faram kon ñu ngi koy ñaan sa borom dolli ko tawfeex dolli ko kattan ci barkeb Sëñ Tuubaa li nga xamante ni nam na ko liggéey Sëñ Tuubaa ci ci alxuraan ci xasida yi lépp rek mu waaw kon ñu ngi koy sant bu baax xam naa dañuy jox kàddu gi rek Serigne Mouhamad Thiaré mu waxtaan mu mu leeral lenn rek ci liggéeyu salaatu ala nabi bi nga xamante ni ci keppango ñu ngi koy liggéey dina ko leeral noppee jox Serigne Sidi Lay moom dina soññee ci bésub salaatu ala bi nga xamante ni moom la ñuy waajal le ci taxawaay bu ñu fa am bu noppee jox sëriñ Maam Cheikh Anta nga xamante ni moo jiite culture bi mu soññee ci. ndigal li nga xamante ne suñu Bassirou Touré joxe woon na ko ci ñu waajalee ko bis bi ci salaatu ala nabi waajalee waajale ko ndax bis bi yo euh, ruu gi moom mooy moom mooy salaatu ala mooy mooy sikkar salaatu ala nabi moom mooy ruu bis bi kon dana si soññi incha allah kon ñi ngi jox kàddu gi sëriñ Mouhamad Thiaré euh, mu wax ñu mu wax mbooloo mi liggéey bi nan naka lay demee ak fuñ ci toll. kon sëñ Mouhamed bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Jiida Abdul Xaadir Samb ci tomb bu am solo bi nga xam ne moom nga ñu indil ci jikko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant bu baax a baax te ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi. Euh, nekk na loo xam ne yaakaar nag képp ku ko déglu te bàyyi ko xel bu baax rek di nga ci mën a jëriñ bu baax su ko defee nag ñu bëggoon a leeral mbooloo mi nga xam ne ñoo seetaan kuréel bii nga xam ne mooy képpangug salaatu ala nabi da ca jiitu mooy ñu xam ne ne kuréel la boo xam ne li ko tax a jóg mooy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp mboolem xeeti salawaat yi nga xam ne ñi ngi ko ciy amal tamit lépp dañ koy defaat addiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne fépp fa ab jullit mën a nekk mën nga koo ànd ak mbooloo mi ndax fàggul nañ leen benn application boo xam ne jàppandi na ci Google Play Store jàppandi na ci fi nga xam ne mooy App Store boo ko amee dana la dimbale ngir ngay mën di dugal say salwaat yi nga xam ne moom ngay def lim bi nekk application boo xam ne képp ku ko am mbooleem lim yi nga xam ne moom la mbokk taalibe di am ci semaine bi Euh, day affiché wu nga mën koo xam weer bi passé dañ koy mën a xam actuellement nii fu ñu toll itam ci semaine bii ñu nekk itam dañ koy mën a xam mu nekk loo xam ne soo xoolee semaine bii ñu génn rek yaakaar naa ne tey la altine waaye semaine bii ñu génn lu ñu am ci ay salawaat buñ ko dajalewee mat na mat na 6 millions 244 mille 366 salaatu ala nabi kon mu nekk loo xam ne mboolem fi ab jullit mën a nekk boo téléchargé application bi mën ngaa bind KSN majuscule Play Store wala Apple dañ ko mën a am incha allah taala mën a ànd ak mbooloo mi liggéey bu am solo bii nga xam ne ñi ngi koy def di ko defal yonente bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne soppe yonente bi alayhi salaatu mën ngaa bokk ci biir àndandoo ko ak mbooloo mi su ko defee kon loolu bëggoon dañ ko cee leeral di woo ñëpp ci bis ba tey ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu yóbbu ci ak jàmm te defal na ci lu kawe njort te nu yàgg ko fekkee ñëpp ci barkeb yonente bi alayhi salaatu wasalaam jërë ngeen jëf aouzu rahim ñu ngi nuyu mbokki bi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Jiili Abdul Xaadar ci jaraay bu solo bi nga xam ni ànd na ko mboolem kippaango salaato ala nabi gi yëpp ci njiital sëriñ Basiiru Ture mu mel ni ni ko mbokki bi yëpp waxee rek sëriñ Jiili jàllale na fi jataay boo xam ni jataay la boo am solo te mbokk taal bi yëpp man koo jëriñoo kon sëñ ji li ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal baax suñu borom yàggal sa taxawaay te yokk xam-xam bi wax yàlla sant nañ ci jataay bu baax a baax a baax te it dolli ko nañ ci lu bëree bëree bëri kon nag ñu ngi ci ñaanal suñu borom defal la ci tawfeex yaatu ginnaaw loolu ñu fas yéenee ànd ak mbokk taal bi yëpp bis bii nga xam ni moom la ñuy waajal la 14 décembre incha allah. ñu di ko amee fële ca Sam kër Serigne Basirou Touré Bokkaatu Mubarak yaakaar naa mu nekk deuxième édition ñu di ci woo mboolem jullit yëpp waaye di ci woo mboolem taalibi yëpp bis bi ni nga xam ne noonu lañ koy waajalee rek yaakaar naa ni Serigne Cheikh Anta dana ci ñëw ci côté lim yi nga xam ne moom la Serigne Basirou joxe waaye ñuy soññ rek ci mbokk taalibi yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kippaango gi yëpp ci wàccaay li nga xam ni. depuis ban ko tàmbali ba léegi ñun ñu koy ànd ak ñun ci teewaay bi comme ni nga xam ne noonu lañ koy soññee jamono yu nekk ñoo ngi sàkku ci bépp bépp membre Kipango salaatu ala nabi wala nga nekk ab jullit fépp foo man di nekk ci àdduna bi rek ñu ngi lay woo ci bis bi bis bi nag ni nga xam ne si ni noonu lañ ko fas yéenee taxawoo mooy bu ñu xëyee ci suba gi dinañ fa amal njàngum alquran comme ni nga xam ni noonu lañu ko sëriñ bi sante ndax Sëriñ Tuubaa képp ku koy liggéeyal sa lépp daa war a jiit alxuraan da ci war a jiitu kon bis bi buñ xëyee danañ ci jiital alxuraan ginnaaw loolu dinañ am ak ànd ak ay jàngkat yoo xam si ni mooy jàngkat yi rajas yi nga xam si ni incha allah rabi ñoom lañ fas yenee àndal ci liggéey boobu mooy ko ci mel ni sëñ Moustapha Ñankul ak ku ci mel ni sëriñ Cheikh Ngunda Gueye ku ci mel ni sëriñ Abdou Khadir Diagne ak ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Lo ak yeneen bokk taal bi nga xam ne ñoom ñëpp fas nañu yéen a ànd ak ñoom ginnaaw loolu Serigne Bassirou Touré mi nga xam ne moom mooy kilifa ak jataay bi incha allah moom lañ fas yéene jagleel bis bi ren delloo ko ci njukkal ngir taxawaay bi nga xam ne am na ko ci kippaangoo gi ak jàppandal gi ñuy jàppandal li jëm ci salaatu ala nabi nga xam ne jamono ñu nekk mi ñu ci leeral la doon ñu ren nag ñu delloo ko njukkal ci bis bi ngir mu fas yéene nañoo amalal jataay boo xam si ni jataay bu yaatu lay doon ngir mbokki taalibe fay teew yëpp man cee jariñoo ci salaatu ala kon ren bis bi noonu la fas yéene demee waaye nag dana am ay kilifaat yoo xam ne si ni fas nañ ci yéene teew loolu nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom jàppandal ko ku ci mel ni Serigne Abdou Samad moom Serigne Sohibou fas na ci yéene teew ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal ko ba mën caa ku ci mel ni Serigne Ahmadou Mbacke mu Daarul Moxti yaakaar naa ñëpp miin nañ ko moom it jàpp na caa teew ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko ba mën caa teew ku ci mel ni Serigne Khadim Mbacke mu Serigne mbàkki Mohamed. moom it jàpp na caa teew kon ñu ngi koy ñaanal moom it suñu borom defal ko tawféex ba man caa teew loolu lépp nag nekk loo xam si ni liggéey boobu ñoo ko ànd ñoo ngi ko ànd ak Serigne Bassirou ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kipango gi kon nag soññee bi mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ànd bi depuis boobu ba léegi ñoo ngi leen ciy soññ ci teewaay bi ñoo ngi ciy soññee tim ci yi nga xam si ni moom lañ ci tënkoon lépp te yaakaar naa ñun ñëpp ñu xam ko képp koo xam si ni daal bokk nga ci kipango gi ñu ngi lay woo ci bis bi ci teewaay bi ci colin bi nga xam si nit jàpp naa ne ñu ñëpp bàyyi nañ ko xel muy colin gu weex ak kaala gu wert muy ci góor yàlla yi ak ci mbokki soxna yi lépp rek ngir taaral bis ba ndax ki ñuy wooteel moom léppam dafa taaru muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag bi bëgg nañ bis ba taaru ci côté yëpp kon nag ñu ngi wàcce foofu suñu kàddu di soññu ñëpp ci teewaay bi rek inchaa allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin saahibi qawli la ilaha wasallim alayhi wa ala alihi bi jaay axira kalaami laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu nuyu mbokki taalib yëpp di sant sëñ Jili Abdou Khader si waxtaan bi am xam ne kon yëpp tooy na si jikkoy yonent bi ñu tànnal tey ji xam ni jullit bu nekk war na si rawatina ahlu salawaat di rafetlu bu baax waxtaan bi xanaa di soof rek di soññ mbokki taalib yëpp si li nga xam ne moom lañ bokk. muy li jëm ci wàllu culture bi ñu gën a góor bu baax baax si sas bi nga xam ne sëñ Basiru tàmbali nañu ko muy 124 000 salaatu ala nabi si kenn ku nekk mu def si kéem kattan ba bu mu yës si gën a baax si soxna yeeg góor yàlla yëpp dañ gën a góorgóorluwaat it si xasida salaat yi nga xam ni. gis naa bëgg nañ kaa jàng lu mel ni muqaddamatul xidma ak nuuru daari nekk taysiir duru samin jaalibatul maraqib ak xasid ak salawaat yëpp mu gën see góorgóorlu bu baax baax tey bu bis baax nañ jéem a taaral bis bi te lim ba nga xam ne jàngoon nañ ko daaw si salawaat ak si xasaayid ren yi mu kawe ko lool te buñ ko yées dañ gën a góorgóorluwaat ci lim yi nga xam ne jàngoon nañ ñu ngi tuub bu baax di baax baax wasalaamaaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax sëñ Mouhamed Thiaré sëñ Sidi ak sëñ Maam Cheikh Anta ci présentation yooyu ngeen def ci xamle bis bi ak xamle liggéey bi kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di wax mbokk taalibe rek ne woote baa ngoog ñu waajal bis boobu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko tax jóg di bisub salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni buñ ci àggee lammiñ yi lammiñ yi sa julli ci yonent bi képp lay saxoo suba ba ngoon jot mu ñi nga xamante ñoo nekk sa liggéey ba ca waañ mbaag fépp fu mbokk nekk te ñëw sa liggéey ba rek sa lammiñ du dañ ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu kon ñu ngi ci woo ñëpp rek di sant bu baax sëriñ ci njiili ci waxtaan wi ak jàppandal gi nga xamante ni jàppandal nañ ñu ko waaw ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan sa borom doon ko taw feex waaw te di ko di ko woo ci bis bi tamit di ko di ko ñaanal daal yi nga xamante ni sumb na ko ci liggéey alxuraan su boobu defal ko ci ndam lu kawe kawe kawe kawe ci barke kon dañ koy jox kàddu gu mujj gi rek mu soññi ñu ci naka lan war a fonkee saatu ànd beeg ak bis boobu ñaanal ñaanal mbooloo mi kon di ko wax rek ko mbooloo mi ñu ngi koy bëggee wér sax waaw mbooloo mi ñu ngi koy bëggee waaw ñu ngi koy bu wér a wér ndax kon ne seen njiit yi seen njiit laa jëm rek moom day day lool waaw day bëgg lool ndax xam-xam beeg yaru geeg dal geeg yëpp rek waaw ñu lay ñu lay nuyu baax jërëjëf bisimilah. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu euh, sëriñ Birahim maa ngi lay euh, delloowaat nuyu bu baax di nuyu mbooleem ñu baax ñu tedd ñi nga àndal. ñu dégg kàddu yi nag kenn ko ci ne bu yëkkatee kàddoom rek dafay am solo lool nga xam ne application boobu di KSN euh, nga xamante ne kenn ku ne rek war na euh, fexe tàbbi ci nga gis lim bu mu wax sax daf maa yem euh, fi ñu toll rek muy 6 millions loolu moom mu am solo nga am nga xam ci ci wàllu ay nit bu ko defee tam nga wax lu am solo aljamaatu rahma nga xamante ne nii julli yi ñuy def sax bu fekkente ne da nga def salaatu fadl Euh, salaatul jamaa da koy ëppee ñaar fukk yoon ak juróom-ñaar maanaam boo julli yow donc julli ci mbooloo ëppale na la yoon ñaar fukk yoon ak juróom-ñaar kon mbooloo mi dafa doon lu am solo yonte bi euh, waxam ñu aleykum maa ngi leen di dénk mbooloo ndax olof kenn mën fukka ko ko dax am solo euh, bu ko defee kon julli ci yonante bi nag doon loo xamante ni lu ama am solo nañ ko tàmbalee woon rek di jaamu yàlla koo xamante ne yàlla moo ko def ak i eh, malaakaam digal ko nag jurit ñi eh, ñu def ko nga xamante ni yoon yu rëy rëy eh, nekk ci su ko defee kon di ci woo mbokki jurit yëpp rawatina mbokki taalibe yi ñi nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi sant caare waxee sëñ sëriñ maam Cheikh Anta moom it moom wax ci lu am solo boo ko defee bis boobu di dëppoo ko fukki fan ak ñeent ci décembre dëppoo bisu samedi eh, kon fépp fu waay ne sax boo mënul dem foo nekk rek ànd ak ñoom bis bi incha allahu eh, def ay lim boo fekkente ne application bi am nga ko nga daal ko ci tàbbal boo ko defee nag eh, sëriñ Bachir moom it ñu di ko ndokkeelaat bu baax ci liggéey bu tedd bu sell bi nga xamante ni da ko weel rek ndax maam bi tëddee Cheikh Mahamadou Khadim ci loolu rek euh, la nekkoon ba jël ci premier <laughs> xamante ni moom moo moo raw ñëpp ba léegi yombal xiyamati foofu lay gën a euh, leere def ci téere yi am solo yi nga xamante ni euh, lim nañ ko ci yi xam ak yi nga xamante ne sax xamuñu ko su ko defee kon muy jëf ju noobul ju tedd ju sell yoo xamante ni ku ku koo xamante ni yàlla bool na la ci rek war ngaa sant yàlla bu baax a baax nga xam ne tey jii bisu altine ngeen fi ñëw doon eh, ko jël si bisu altine la doon bisu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon azhar eh, eh, amul doon loo xamante ne ni lu ama am ko defee nag kon salaatu yi nit moom day jël benn wala ñaar taxaw moom di ko def ba xamante ne nii moo ngi jël salaatu ibrahimiya mu doon sa féete wala salaatul fatihi wala sallallahu ala muhammadin wala salaatu naariya bu ko defee léegi yooyu dafa am solo bu dee ci xasaay ji tamit dégg naa kilifa gu mag boo xamante dafa seen dafa seenee noonu xasida gu mu rek eh, di ko jàng gannaaw bi nag bi mu ñëw sëñ Saalifa ne léegi daal damaa nga tànnal ma mais sëñ bi ñett la ko tànnal ma tey si sa bokk na ci yi ko tànnal mu di ko jàngee loolu tamit taalibe yi bàyyi ci xel bu baax a baax dina te wax ni axalul amali ila ahabul amali ilallaahi adwamuha wa in qalla ne la jëf yi gënal yàlla mooy yi sax donte sax euh, dafa néew su ko defee ne julli ci yonent bi baax na ci bis bu ne waaye bisu àjjuma nag euh, ci la gën ndax dafa ne képp koo xamante ne àjjuma yaa ngi julli ci man lu bari bu ëllëgee maa lay rambul sama bopp nga am ci ay xeet salaatu yoo xamante ne boo ko dee def sax buñ dee tàbbal ci bàmmeel euh, yonent bi ci boppam moo lay taawul boppam def la ci kuusu bàmmeel kon loolu yaan suñ boroom boole ñun ñëpp kon daal xol sedd na buy leen sant bu baax ci ñëw bi ndax eh, lépp yiw la boo yiw gii ngeen ñu boole ñu ngi leen ci sant bu baax delluwaat di ndokkeel la ba sëñ Bachirou moom eh, sëñ Cheikh Touré moom soxna Tahiratu moom si Abdoul Ahad Mbacké eh, kon kullu aamin wa antum bi alfi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kullaka an imani wa lazimin ihsani lirrahmani